mer ba fu tuul la askan wi yewoo ci quartier Mbacke dimbu nekk ci commune bu Mbacke bool def kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk Senelec li ko waral nag ay at yu bëree ngi nii ñu xañ leen courant loolu tax na ba insécurité total am seen boobu la quartier sàcc yi di fa dicté seen loi ñu ci bëri jaaxle agresseurs yi tamit noonu ak lu mu ci mën doon dalal nañ taskatu xibaar yi teeru leen ak morso yu xonq mas Ndiaye nag moo yoreen seen kàddu ñu déglu mas Ndiaye ci micro seen set benn jafe-jafe daal lañ am muy jafe-jafe courant mais nag dafay bëgg a ndax xam nga koy dund ci courant di bëgg dem ñaari ñaari at yalla mëno am courant bu baax xam nga courant bo xamne day dem ba 169 soixante xam nga loolu mom baax ñii seen i frigo am nañ jafé jafé glace daanaka fi nit ñi boo xoolee dañuy jëndi glace ci yeneen zone yi ay mbax xewar wala ay la ci dëkk bu toll ni mbakk dimu dipi ay ñaari at mënuñu am benn courant bo xamanteni mën nañ ci faj suñu soxla ba paré di jënd ay crédit di ci dugal ci ay courant carte te bis bu yalla sax ñu na sa ko dem na damay jëlal loolu lépp mais courant boo xamante ne mënoo ci am lu la satisfaire ci day bëgg yàgg yàgg ñu mën a xam dem nañ fa jooy ko bañ ne nag dañuy indil xaw ma poste mais depuis ba ñu tàmbalee ne dañuy tàmbali liggéey bi ba léegi mun cee waaw Mass Ndiaye dëkk Mbacke Ndiob di am am jafe-jafe courant rek depuis yàgg ba léegi am kenn ku ñu ko fajal courant boo xam ne dafa dem ba maanaam cent soixante neuf volts xam nga loolu mënul mënul mënul régler benn benn benn situation du clim nga fi mën a taal du frigo lampe nekk sama lampe nekk da ngay xëy fu ñuy boo taalee da nga toog lu yàgg mu doo ko tàkk xam boobu courant normal koor gi diiraa koor gi yëpp damay jënd glace chaque jour may damay frais naa ne ñii ñeneen ñi nga xamante ne ñoo dëkk ak man damay dund loo xamante ne damay dem ñu ma expliquer ay cas yoo xamante ne pour sax sonn boobaak léegi nag amuñu kenn ku ñu ko fajal ci ñi ngi dëkk ak ministre même pas 800 euh, mètres ci amul lo xamanteni bi ñun ñu ngi koy bëgg mbàkk di mu ñu defal ñuko leader benn leader bu fi nekk bo xamne ma ngi ñuy jéem défendre ci suñu jafé jafé bi gisuñu ko xex bi bañ na ko ba sax ñun parce que dañ ci wéet parce que amna na ñoo xam ne jafé mais dañ ci tek sen tànk té ñu ci dëkk bi di ay leader té dama japp nit sa bo day xex da ngay xex ngir sa kon mais do xex ngir sa benn intérêt parce que fi bo xolé bo fi duggé kër yaa mag zone Ndiayane zone Ndiakala fépp am nañ ay pot am nañ ay pot ay ay poste courant ñun amuñu pot amuñu poste courant amuñu dara léegi nag ma doon ma doon wax si euh, ci Sénégal bu fekkee ñun dañ koy bokkul dañuy wax parce que jafe-jafe boo xamante ne bi dafa dem di bëgg diire ay ay at ci amuñu kenn koo xamante ne mën nañu ko fa jàpp jafe-jafe yi foo ko natt rog romb na ko ci wàllu courant kon dama bëgg Mbacke Dimbu ñu boole ko ci zone yi nga xamante dañu wara a ne zone bu am doole la kon ñu japp nañu suñu jafé jafé bi parce que mëno am ministre bo xamante ne bi ah, même pas 800 cent neuf mënu la défal dara ci sa carte dafa am lo xamante ne bi askan wi duñ ko sétan motax nak ñuy interpeller ñi nga xamante ne ñoo yor ci wàllu yu courant bi muy sénégal parce que nit sokoy koy jaay dama japp dang koy jaay lo xam lu lu baax la mais mëno jël sa courant muy dem ba jeex ca mënoo ci am la satisfaire nga tourné wa diko ko yor courant mu ay lampe kese mënoo ci tass frigo mënoo ci tass kel même li ngay lak rek ngay lak lolu nak nit ñi dañ ci sonu dañoo mar nañu taxaw nañu taxaw parce que parce que daf ci am loo xamante ne dafa mel ni ci réew mu amul droit ñu nekk. est ce que dem a dem pour jooytu fa. fi ñu a dem yëpp dem nañ fa soo waxee ñu ne préparé nañ leen poste. poste préparé nañ leen poste ba barki dem doog a ñëw fii gas fi sam fi ñetti feer dem heure suñu yëgee ne ñu ngi jóg pour mën a wax suñu naqar rek ñu indiwaat ay affaire tàmbali. xam nga nit ki da nga ne da nga defal poste gisul fiil gisul poste gisul potu lamp gisul dara bis bu yàlla sàkk ah ñuy dem ak ñëw ne balaa màggal gi da ngeen am courant ca màggal ku ne xam ne ni ñëw na nu ñu màggalee ay at duñ ko terminé waat di ko màggalee nii te ñu defar courant bi mënuñu ko ñu ñu résilier dagg contrat yi ba keroog ñu ñuy mën a jox bu baax ñoom jigéen ñi dëkk ci boobu la quartier tamit kenn demul ñu des yëkkati nañ seen kaddu di ñaawlu di naqarlu nee nag dañoo sonn ci ñàkk courant gi nga xamante bi askan wi ñoo ngi wéy di ko ñàkk courant ñàkk kaaraange agresseur sàcc ñoom ñëpp wéy di lëmbe koñ bi ndax insécurité totale li ko waral nag nee nan mooy Senelec bi nga xamante bi moo leen xañ courant ñu déglu yooyu la jigéen ci micro set seen tool ni guddi yi ñu toll dañuy tëdd ba xaaji guddi bi lal ak say doom ay ma frigo courant bi yàq na ko yàq sama télé yàq sama banlo sama doom jëndal ma frigo ak manteloo boobu ba nekk di mënu maa fexe ba baras dëkk na maa koo xam ne ñetti borom kër danoo rey seen xarit tabaski ren ñu fab xarit tabaski yi dugal ko ci frigo bi li nu man a togg ñu génne ko amuñ ci lu may seen frigo ba di saxar yàpp yëpp yàq ci ñetti borom kër ci ñetti xar ñun ñii sunu xar yëpp dafa yàqu rek léegi nag bu fekkee ci dëkk bi leen dëkk dëkk fay ñu fay lu waaye def ñu def ko nanu boole ci dëkk bi ñaanuñu kenn sërxuwuñu kenn nanu dugal ko tey sunu kër yi am courage ba ginnaaw jigéen ñi Pape saw nekk kilifa ci boobu la quartier yëkkati na ay kàddoom moom ne lépp loo xamante ni bi nag waroon nañ ko def def nañ ko bind nañ ko it yóbbu ko ci bépp autorité bind nañ ko it rawatina yi nga xam ne moom mooy préfet bu bees bi nekk ci diwaanu Mbàkke Bool yëgal nañ ko lépp ñoo ngi toog di xaar tontoom ñoom nag nee nañ dootuñu fay bépp benn facture dootuñu fay dara fii courant bi normalul mu nekkoon Youssou Niang fii ci Mbàkke Bool ngir seen set